bokk tànn bi fi taw yëpp te dara yëkkatiwu leen lu may istajibu lillahi wa lirrasuli iza daakum lima tuhibbun mooy ñëw ngir wu si wàllu seen tur kon sëriñ bi bu sëriñ bi nee na mu ngi sant di gën bu baax ci sa yitte ndax mooy bu ñu ko tuddee rek tuddee waa daayira Touba ca kanam moom bàyyi ñëpp lu xam ne ku am ci bi dafay ko di nuyu mboolem ñu topp seen ginnaaw bu ñu ci tuddee sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ moom mi nga xam ne moom lañ dénk liggéey bii te moom itam mu jàmbaar ci taxawaayam bu di nuyu Abdoul Fattah Gueye bi nga xam ne moo jiite daayira ak mboolem ñi ci ne ñëpp ku mel ne Serigne Abdoul Ahad ak Jibi ak Serigne Moussa Moussa Moussa ak ñëpp doon tànn ñu ci ci ginnaaw yëpp di jàmbaar boo xam si dugg Serigne bi rek tudd ñëpp ndax mooy jëw ñi kon Serigne bi war ngaa sant yàlla bu baax ndax Serigne Touba dafa liggéeyal Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba suñu borom fayee ko lépp lépp lu mu yéene woon bokk ci dëkkam bu tedd bi itam suñu borom jox ko kon nag tawféex ji mooy ku yàlla borom jaar ci yow waaye Serigne Touba li mu bëgg kenn mënu ko te am. kon nag ku am tawféex yi ci yow war nga sant yàlla bu baax te it ni ko Serigne am sa waxee kilifa yi jëkk yëpp waxe ko ne loolu moo di ci am suñu si àll yi wax na ko moom mii ne ci seen kanam. yitteewam pasteefam ak taxawaayam tax na ku ko xam ku ne da nga xam ne amul dara loo xam ne ci lu teg ndax moom ba mu jugee ba léegi yitteem yëpp génn Sëriñ Tuubaa tàmbalee ci Sëriñ Tuubaa yëpp ci sëriñ bi soxlawul leer lu sëriñ bi dugg ci mbirum adduna dugg ci mbirum politique dara itteel ko ñooy Sëriñ Tuubaa foofu fekk maa ngi ci alxuraan ak xasida yi ak topp tootaan yi Sëriñ Tuubaa jëwriñ bi mel noonu nag ko yàlla def tawfeex mu nekk ci sa kanam war ngaa góorgóorlu bu baax ndax moom de wóor na ma ne waxuma ko da seere ko ndax ni mu demee ndax mënuma ko seere waaye dama koy seere ci doon taalibu Sëriñ Tuubaa ku topp ci ginnaaw ci Sëriñ Tuubaa képp la jëlee. la jëmale du la jëmale si ñànd te Sëriñ Tuubaa waxoon na ne dee leen fital te jaar ca ngir ma ndax kuy fital ku nekk fu fii nii guddi wa anna haza siraati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatarakum an sabiilihi kon moom nii ñu ngi koy ñaanal bu baax xam ci moom ci yitte nag ko si yàlla na moom te mboolem ñu bokkal Serigne a bu ngeen déggee Cheikh Mouhamadou Mountakha fi nekkee Serigne Touba laata muy doon Serigne Touba boobu ak Cheikh Sidi Moussa moo fi nekk dégg ngeen kàddu yéen yëkkati wax leen loolu ñu ngi koy tey ñëpp a wax na ma ne sëriñ Sidim Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na ko bu ma la séeroon nga tàbbi ci kàmb. maa ngi soog ah, loolu séeréer mënu Atta dégg ngeen jëf ñu ji sëriñ Cheikh mu sëriñ li mu neen mooy musuma gis mu def ko. mu yëkkati kàddu soññu tànn bi wax ci xalaat loolu. te mboolem jëfandikoo suñu tubaab yëpp nag. muy sëriñ si am suñu soxla sëriñ Abou sëriñ Abou mi kilifaam bañ na ko boobu ma sant ci réew mooy soññi tay bi ci ko boo limee da ngay juum waaye ñu ko waxee mooy xam ne bokk ci sëriñ bi wala nga dafa wuy si rek di Sëriñ Tuubaa duggoon ci yoon bi te yoon bi tàmbaloon ko di doxe dafa ñëw ngir jëmmal ndax Serigne Touba bam nekké ci njëriñ bam woté ci ñaar ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett la bo waxoon wax ju am solo dem wax day gudd ndax jotta bi nit ñi dañu sonu waye lam ci waxoon moy lii lepp lu ngeen sombati ci lepp lo xam ne lu ngeen soxla na rawat na bi jëm ci neegu yalla wala lu dem na ngeen ci góorgóorlu ci seen kéem kattan. Hmm. def ci àll ñaan man ak li ngeen moom ci seen kattan ñam ngeen dem la xasaay wutu ko ci anam bu seen te bu ci seen kattan ñam ngeen xaar fa seen jaam ak baax waaye maa ngi leen waxtali ko lépp ndimbal loo xam ne bu daan fajale seen aju itam daa leen xañ seen ngor xañ seen xañ leen seen jigéen daa koy firi lu gudd la moo ko waxee état bi waaye kon lii ngeen la sëriñ bi waxoon ne ku la mën a sañal la yéen giseenu Sëriñ Tuubaa njàngale moom da ngeen jur rek dégg na ko loolu nag gëm naa du ngeen ko wàcc moo tax 2016 bi ngeen sosé tey waxoon naa leen nee seen daayira bi ñëpp ci am yaakaar li tax ñi am ci yaakaar nag moo yéen ñi ko jiite dañ leen xam baax a kenn xaw ci loolu liggéey Sëriñ Tuubaa kenn xaw leen ci lu dëgg li yàq ab daayira rek ñaar rek la moo laa ne ko waxoon mooy xëccoo dara ji ak ñett ak tàbbi ci mbiru góor gi ndax mbiru Sëriñ Tuubaa ko boobu ba léegi ni nag yàlla dimbali li fi jaar bari na lool waaye kenn mosuñu tamit tàmbali ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa loolu nag mooy seen gànnaay moo moo leen ji ji tamit moo xol tamit yëpp noonu te Sëriñ Saliou Mbacké daal wax na fa xoolu taalib yi jëm fa la xoolu Sëñ Tuubaa yi. ndax ci kanam taalib yi Sëñ Tuubaa yi dëgg yëpp kooku ci tudd cofee nag yëg-yëg ba mu ci am doo ko wàññi. kon nag na ngeen ak yaqin ci ne seen liggéey bi Sëñ Tuubaa nangu kon nag yàlla ba di bëgg a di Sëñ Tuubaa ci dëkk yi lépp mën jëf ko ba ko seen yoon. ba tey Cheikh Issa Diène dafa ne aw na murid yi dañoo mel ne wagoo saxaar. bu bopp ba doxé rek ci ginnaaw yëpp dox. dëgg la de kon yàlla dimbali leen ngeen am jitt du dox. sëriñ Abdoulaye Mbacké da wax ne am ci ñoo xamne dañu tax dafa doxal ngeen de am na suñu dox doxee bu dama sel lañ ci mëna jël bopp rek ma ko. mu ne gënal rek bu topé ci ginnaaw bu bu yagge aw xëy na mu jeex kon nag ku jub dëgmal serigne touba war ngaa fexe ba top ci ginnaaw ko xamne day wax. dëgg la yéne a yàlla na doo kon ngeen xam ne yor bi mosuñu dugg ci lii ndax jumaa njariñ loolu ko liggéey seen taalibe seen tubaab ñoo ko santaane raay bii ak Cheikh Mahamadou Moustapha ñu njëkk wutu seen tubaab ba mu koy woote ñëpp jàpp nañu lu mënti nekk daal waaye yitteem ak procédu ak doomam moo tax moo taxawal ko bañ mën a tàmbali jumaa ak Cheikh Mahamadou Farid bi muy toj carrière ba ngir àggale jumaay Sëriñ Tuubaa bi booba jamono yu jafe la woon ndax dafa fekk crise bi door a jeex mhm. waaye doogu taal bi Sëriñ Tuubaa topp ci ginnaawam dama xam ne Sëriñ Tuubaa lépp dara mu liggéey ko ba jumaa ji àgg lépp ko ci nekkam ginnaaw bi tam Cheikh Abdoul Ahad moo njëkk a tudd ci làmb ñoom ne dinaa woote milliard wallaahi ba mu koy wax nit ñi dañoo jàppoon lu mënti nekk la. mais sëriñ bi dafa xaw a wala dafa xamul fi jamono toll waaye la nga waxoon ci waxam waxtaan wu jiw rek mbay ma nangu xol yi ñoo bokk a wóor te xol yi nangu nañ sëriñ Tuubaa te loolu ko attan ginnaaw moom Cheikh moom itam yàlla def na liggéey bii ngeen ñëw ngir fas ko def ci dëkk bi. muy ci wàllum assainissement bi Serigne Saliou Mbacké moo njëkk a génne ci alali boppam wóotewu ko woon sax moo tax ñu bari xamul ko mm-hmm. def assainissement ci ci biir dëkk bi loolu kon mooy ci njëkk am ci toppaat door ci am waaye Serigne Saliou moo njëkk a génne ci alal def ci lu ma six cent mille ci loolu yàgg na ginnaaw bi itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ba mu ñëwee itam ñu defaraat assainissement bi yokk ko ba Kanko Armeli ak kër doomu Sëriñ Tuubaa yokk ba ak Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké ñëw bi mu ñëwee itam 2012 yàlla def mbënd mu métti am ci dëkk bi mu wooloon ba ma ñëw mu xamal ma ne damaa bëgg tàmbali. assainissement bu ci dëkk bi daa gis saa ne dëkk bi ndox mi bari na lool mbedd yi kenn mënu fa jaar nekkoon nag damaa fas yéene yëkkati un milliard def ko ci assainissement bi tàmbale ko nit ba yàlla defee mu xalaat ko yëkkati ko war ko ci def bi ko ci jiite mu mi yëgee président Macky Sall ci la jël fukki milliard tàmbale ko bi njëkkoon bi ci kon loolu mooy. liggéey yi fi fi weesu kon yéen bu ngeen jugaatee ngir xam ne liggéeyee Serigne Touba dafa Serigne bi taalibe Serigne Touba yi ñoo ci woon jiitu ñëpp ndax loolu mooy bëgg-bëggu Serigne kon loolu képp ko am yitte wala nga am posture wala nga am taxawaay war na leen cee jàppale bu baax a baax te jaayante yi ngeen def itam dégg naa ci wax ni ay kàddu yoo xam ne dugg na ma lool ndax. ni ko suñu joom sëriñ Abdoulahi wax waxee léegi sëriñ Touba ki joxe ak dërëm ak ki jox mi daal ci pësee fa la ñoo yem ci woon sëriñ Saliou Mbacké daal wax ne addiye moo ko doom ñooy xeer bu ko ci dara pësee fa ba ko joxee ca laaj kon ña tàmbaloon di joxe ña téeméer ba liggéey ak sëriñ cant gi ci ñoom loo tàmbalee kon laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatala ulaa'ika a'zamu darajatan mina allaziina anfaqu min ba'du wa qaatalu waaye nag wa kullan wa'ada Allahu al-husnaa. ma ne. sëriñ Abdul Ahad Mbacké danaa bu fa wax ne diwa diwa fa ne daane. kana kana fa ne nga xam nga ni kër yu mag yu baaxoo rek buñ gisul borom dara ji rek ne ko moom daa mel ne ñax ni mu solo mu ne kana kana ñu lim ay tur sëñ bi nee na ñoo de ñoo ma gën a itteel borom ñaar dërëm juróom yooyu ñeenti xeet bi ñoo ma itteel ndax pour suivre kese la njëkkati kon loolu itam mat nañ bàyyi xel bu xam ne ña ña am kàttu mën a jëf ëpp ñu pour ñi néew alal te mën a kon ñëpp la ñu war a sant dañ sant ñi joxe ñaar ko joxe ñaar téeméer te seen poursuite bi seen doole tollu fa waaye ña joxe lu bari kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm te xam ne ko jëfale seere si Serigne Touba bu ko kenn xamutoon que Serigne Touba xam koy doy na si seere boo xool nag Serigne Massamba ñu ne ko Massamba mu ne ko Mbacke ko. na xam ne ak daam saan la daam saan mooy dencukaay mu ne ko kon dem mbàkki ñu fas yéene doone lantinoor mu ne ko loolu de képp koo xam ne def nga ko dana la ko dencal ba fa nga xam ne fa amul diw ne la liggéey Sëriñ Tuubaa nañ xam ne mooy suñu mu war doon suñu yitte ndax moom ji te xam ne kon daayira bii nii waa kër Sëriñ Tuubaa ak bokk yi rafet nañ ko bu baax ndax Cheikh daa wax ne ku ñu jox addiya te doo joxe addiya te yaa ngi mel ne ku wut sa waxandew gaal bu mag ku fóot ay yéeréem ba mu njëkk mu denc leen am denc la nga denc ba gaal fees boo yaakaaree ne am nga yéere bu su waajtaay bi utañ ko agsi laaj yéere nga yëkkati ba ñëpp jox ba yëpp jeex bu fekkoon nga denc sa yéere yooyu waaj si biir gaal bi keroog bi soo rek am nga nee na fekk kilifa bu ñu jox addiya te bu jox addiya noonu kon yéen da leen dimbale sëriñ am satum daru mu at moom maam Thierno dafa nekk ci kër Cheikh Abdoul Ahad ak yeneen kilifa am taalibe bu ko koo xam ne ab taalibe nag kilifa gi jëles yëkkati ñetti nag jox ma dem siyaare génn kooku ne sëriñ am sama de damaa amul jaaxle maa ngi damaa xamul taalib yi dañoo amatul ko séet wala dañuy gis am mu ne tax mu ne ko kii de nee na man la yaakaar àdduna ak àllaaxira te addiyaam ci man yoosuwu ñaar téeméer te daayira bi mu andi de wóor na ma ñàkk na ci lu ëpp ñaari junni ndax nag joxe na paas te dana teg lu ëpp junni kon loolu neexutu fi si am sa na ko déedéet tey la taalib yi ëpp ko séet li ñuy joxe Sëñ Tuubaa tax ñu ko joxe képp koo xam ne ñu nga ko jox rek ngir sëñ Tuubaa nga di ko jàllale ci moom ñu ñu ko jaar ci yow sëñ bi sag képp koo xam ne ñu nga ko jox rek te jàllale ko ñu jéggi def yóbbu ko directement ci kon seen liggéey bi loolu toog kon la seen xel daal baax a baax te ngeen góorgóorlu ci baax a baax nag te xam ne jëm naa ne sëñ Tuubaa ñàkk na ko ndax li tax mu ñàkk ko li yàqoon yenn daayira yëpp yàlla musal leen kon nag yàlla na ci gën a musal te suñu Tuubaa dimbale leen jaaxandu ci liggéey suñu Tuubaa bi ci dëkk bii nga xam ne suñu Tuubaa dëkk bi rek ko newoon fa mu mas bi la mu wax mooy diggam ak yàlla diggam ak Rasulullah diggam ak ko ñeenteel mu dëkk bi kon nag képp koo xam ne jur nga ngir liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi war ngaa daloon xel ci xam ne Sëñ Tuubaa dana ci def loo te ko ndax waaye lu ko waay jëfal itam pay ga danga ko gis jeexal ko rek ci la Cheikh Ibrahima Fall daa wax te ma boo ko sëriñ jaaxle si ba am ñu ñëw di ko wax ne ko xanaa nga xamul sàng ni mu jëfee fii ak fi àll toll. sëñ euh, Cheikh Ibrahima Faty ne leen néew ma xaw ma sàng waaye yéen itam xaw ma leen Sëñ Tuubaa ndax neewal nañ ko jaroon na nga dem ci sëriñ bi mu soppi leen liggéey ndax boo dajaloon xaalis bi guerre bi dafa am ci réew mi bato yi ñëwatu kon dara amatu. moo ne ko néew ma xaw ma sàng waaye yéen itam xaw ma leen Sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa du santaane mu ko dul am te loo sant mu ko dul def. Serigne Saliou Mbacké dafa naa nett lu bari di wax ne boo ko liggéey liggéey na ko mu àgg liggéey bépp lu ci na ay muy seng yaag tontu yaag lépp ay tontu kon mooy loolu mooy liggéey sëñ Tuubaa. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne sëñ Tuubaa liggéey ko yomb na. ndax day féetewoo coono bu bàyyi asal kon nag sant leen bu baax te ñaan li ngeen yéen lépp daal yàlla leen a jëfiñ Tuubaa sëriñ bi ngeen di sant leen gërëm di leen wax ne lam leen waxoon rek na ngeen xam ne yitte mooy di am solo te yàlla defal leen ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm lépp asalaamaaleykum wa rahmatulah salaam wa